Bienvenue sur Salam Vision. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bu ñu delluwaatee sant yàlla julli ci sidina Muhammad ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala yàlla yàlla dolli jàmm. yàlla dafa ñu sutura ànd ak alaaxira yàlla teel ñu boppam rawatina ci weeru tee bii di shahru Ramadan. di ñaan yàlla rek lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla nangul ñu ko. waaye lépp luñ ci juum rek yàlla yàlla jéggal ñu ko bi jaahi Taaha di di di nuyu di ziyaara di baalu àq di ñaanal ñëpp jàmm fa tabaarakallaahu di jiital ci ñooy bi xalifa général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour atala umruhu wa aydahu nasara noonu la ñuy nuyoo tamit xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké atala umruhu wa aydahu nasara ak mboolem xalifa dem ba Kaolack dem ba Léona dem ba Limamoulaye dem ba Ceneba dem ba Ndiassane bàyyiwuñu kenn ñëpp ñëw leen di nuyu di leen ziara ñu am mbégte nag tey dellusiwaat fii seen émission bi jotaay mag yi kan la àndal ñoo ngi àndal Mbaye Donde Ndaw ñu xam ko muy tagg Seydina Muhammad waaye tamit di turandoo mbay doon bi nga xam ne suñu maam Serigne Babacar Sy moo ko defar ba mu am li mu am tey ci tagg Seydina Muhammad jëmm ji ñu toogal nag ku jeex tàkk la ci Seydina Cheikh jëmm ji ñu toogal ku jeex takk la ci Serigne Babacar si waaye ku jeex tàkk la ci turandoom jooju di suñu papa mbay doon ndaw yàlla yàlla dolli ko leer di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te seen émission jotaay maa ngi tey yi ngi ànd ak mbay doon fii ci Salam Vision nag ñu nuyu waa diaspora bi yëpp nu ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci chaîne bi fa saa su nekk nekk Sénégal nekk Europe ànd kook ñun lu ñu dugal ngeen seetaan ko ay ñun tey na a xam ne daan ne leen indil ku ne waaye tey ki leen indil tey mooy Chéri Oumou Khayri borom waañ bi mooy Chéri Oumou Khayri di borom asrar di borom kurus di borom yi may yàlla moo ko def ci moom nag defuñu ko ci moom duufoo luñ ko duñ ko fekk mu duuf innal fadl bi yadillaahi yuti man yashaa wallahu zul fadl azim yàllaay borom gënal te ngëneel yooyu def na ko ci moom kon dañ koy nangu moo tax tey Salam Vision fa yéene koo seet si ànd ak moom ñu génneelu na ci moom ñu jëriñ ko waa Sénégal jëriñ ko waa Europe jëriñ ko waa àdduna yéen ñi nga xam ne yéenay saxoo di ànd ak ñun seen émission bi jotaay mag yi ci chaîne yi bi waaye nag ci réseaux sociaux yi ñoo leen nuyu yéen ñëpp di jox rek xaaj mbay doy na mu nuyoo su ko defee ñu doog dugg ci waxtaan bi. alhamdulilah rabbil wasalaatu wasalaam ala asrafil xalq sayyidil awwalina wal axirin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu waa àddina bi yëpp. di leen ziar di leen balu àq yéen ñëpp ci weeru tedd yi. yu ramadaanul mubaarak. di ñaan yàlla lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu ci wàcc sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa di nuyu. xulafaa yi ci yëpp comme ni ko Oustaz Diarra waxee di ci jiital sunu xalifa général de Tidiane Serigne Babacar euh, wa jamiu usrati maam Cheikh Seydi El Hadji Malick radiyallaahu taala euh, ci teg sunu xalifa bi ñu ràññee moom ci teraana muy Serigne Mountakha Mbacké ñu koy ziar bu baax ñu moom ay rakam tabaaraka allah di nuyu xulafaa yi nekk ci

gàmmu Déllé. tabaarakalla ak hmm. hmm. ñu ngi nuyu ko comme ni ñu ko waxee léegi rek mooy oustaz Mbaye da Ndaw bu Serigne Babacar Sy. waaye di nuyu suñu papa jooju suñu sëriñ suñu taayoo yàlla yàlla dolli ko guddal fanam. yàlla dolli ko saxal. bi jaay Seydina Muhammad salaa salaam. danaa ko léegi ba ngay génne ku boo génnee xam ne umu xayri ba fi jaar. waaw moom yore nga ko cant ak gërëm. waaw yow moom doo bàyyi ba bokk ñoo xam ne dañuy bàyyi ba seen soxna yi faal ñu doog leen gërëm. waaw yow moom bokkoo ci yooyu. bu baax a baax baax. di ba di di di di la di la ziyaara bu baax a baax. di la ñaanal soxna umu xayri yal na yàlla taxawu la. yal na yàlla gi. dama koy faral di yow di ko fekk di ko su ma ko fekkee ba def umu. yow ba ngay ñëw da ngaa fekk dara bi nga bàyyi woo ba mu neex dara bi nga fekk kon lu fi indi lu fi ñëw rek bokk nga ci ñu ko indi kon kanum yàlla yàlla guddal fanam waaye mii di borom këram bi mbay doon da ñu xam la ci tagg Seydina Muhammad ñu xam la fii ci Ndakaaru nga nekk borom xam-xam waaye nag nga jëloon tagg Rasulullaay mu amaat yeneen xéewal yu ne fekk ci waat bu mel ni arab dafay war faral di wax ni bëreel tuur nit su bëreel tuur day fekk ay martaba moo toll noonu day wane ni kook dañuy tegtale kooku ku baax la bu mel ni kon fa tabaarakallah bi lay doog a xam ñoo ngi la xamee fii ci Dakar mais ñu bëgg a xam même doon ndaw ba bu ñu waxee mbay doon ndaw tey day tagg Seydina Muhammad wala mbay doon de sëriñ la ci asaraar wala mbay doon de day ñaanalaate wala mbay doon de day faj faj bi day faj faj bi ñoo xam ne fan la ko jële ak mbay doon la cosaanoo ak fan la jànge waaw fa tabarakallah yaakaar naa ma dem ni laaj ma ko hmm. waaye it eh, laaj bu neex a tontu la hmm. ndax eh, dañoo juddoo foo xam ne hmm. ay borom xam-xam rek fa ne. Mm-hmm. su ma neexee ma ne ay nitu yàlla. Mm-hmm. yaakaar na ku tudd sunu maam alaaji taayam. Mm-hmm. ñi nga xam ne mu ngi ci jamono. yàlla na yàlla guddal fan. amiin nga xam ne ni nitu yàlla la. te bëri na xam-xam bu ñu am ci moom lañu ko jëlee. bi ñuy dem di jàng yi ci ndigalam lañu jógee. dem jàng. tabaarakalla ma yokkaat ci samay maam yi nga xam tey boo tuddee. Mame Babacar Kobar Ndaw ci Fass Mame Baba si nekk des heures amin dëgg bu ñëwee ci maam Cheikh Seydi El dugg ci néeg bi ko Maodo dalal gis ko Seydina Cheikh mu jox ko lam koy jox Maodo yéeyi ko mu dem tuddee dëkkam Fass maam la mm. kooku suñu maam la mm. kenn la ci suñu maam yi mm. bu dugg daaru salaam maa Omar Ndaw bu daaru salaam ñu xam na kooku ci suñu maam yi la nga dem Dimista léegi rek maa ngi jokkoo benn téléphone ñuy waxtaan chaque jour dañuy ko muy ay nit yàlla yoo xam ne dañoo dajee ci ñun kon ñun yaakaar naa li ñu nekk du suñu ngóor dañoo fekk ñu nàmpatal ñu ci. Mm-hmm. ñu ñu ñu topp seen ginnaaw nag. Mm-hmm. di di xeñtu. Mm-hmm. jeexitu mag ñi. ba yàlla xaw ñu ci tànqal. waaye ñun daa rab nan alors ko dasas. naam kon su ma déggee leen li nga ne ci yow da nga ko doon. waaw dama ko doon ba pare nag. ñu yar ma ci. Mm. ndax doon rek doyul. laysa fata man yaqulu kaana abi. dëgg ah, ah, ah. la wala fata man yaqulu ha anasa. macha allah mu ne doom. wax ne sama baay. waaye day man maa doonu sama baay. maanaam doonu sa baay. doon sa baay ko gën li olof di wax. Mm. maanaam xam-xam ba ngay uti. Mm. ak ñoom la nga doon ci ñoom. boo ko boolee rek di nga am dara. moo tax macha allah rabbi yoon boobu nag lañuy ñuy teg ñu dem jàngi fi ñu war a jàngee. Hmm. gëstu li ñu war a gëstu. Hmm. yow toog déglu leen. Hmm. ñu dee ñu dañ ne ko képp ku mag dee rek nga ñime. waaw li tax ñu ñime nag. dañoo dee. li ma des sama benn kilifa bu na wax soo bu xale ñëwee. naan bàyyi nee na. nee na bul déglu bul jàppale xale bi waaye bàyyi jàppale ne bàyyi may wax. ndax loolu du waxam. waaw kon yow bu la déggee rek. mooy fi nga jaar fekk ak ni yàlla yi nga yëpp. jàpp si Cheikh Seydina Hadj Malick nga génne si ñoom mhm. kon tey boo boo boo fajee da nga war a faj boo faju da nga war a faj waaye mbay nag ñu ñu jiitu loo xam ci tagg rasulullah ak lan moo la boole kër si Cheikh Seydina Hadj Malick ak lan moo la boole suñu moom Serigne Babacar Sy radiyallahu taala mooy li ma la wax rek parce que ca garab gala mm. meññet bi mm. euh, saalum ne tund woowu yëpp ñi mën a limal ñëpp si jaaj maale rek la ñuy mooyee mm. bañ naa ko ba sama maam boobu ma la wax ma Babacar Koba si daaji Malick ko wan Cheikh Ahmada Tidiane Chérif toog naa sëñ Abdou Aziz Amin wax ma ne ma seen maam de fële néeg ba fa nekkoon bu ko Maodo ubbiwaan seen maamu ñëw bu ko tëjee rek seen maamu dem mu wax ma lii yaakaar naa photo bu boobu sax mu nga nële sama doom bi teg keroog bañ bañ keroog suñu ñaareelu dem la. mu jël loxoom teg ci sama bopp doom Seydina Mohamed seen adversaire am na. moom mooy suñu ñaareelu dem. suñu première dem loolu la ñu wax. tagg yonent bi sallallahu alayhi wa euh, ñuy wax may-may la. ndax ma la wax noonu. ay maanaam ay borom xam-xam lañ ay nitu yàlla lañ. waaye nag kenn nekku ci woon di wëy. yàlla dogal bi bi bi ma ganee àddina ñu tuddee ma alaaji mbay doom mm-hmm. du tur wu ñu foraatu de du dama nekk ci milieu bi ñu mm-hmm. woy ñu ba tur bi fekk waaw tur bi déedéet ah, ah. tur bi ca asal la am na yoo xam ne dañuy jëy saar màgg rek waaw tuddee seen bopp diw waaw gis naa sax ah. woykat yoo xam ne gëmuñ ne mbay doon di waaw gëmuñ ko. waaye buñ ma fekkee Tiwaawan te kër gi ci la ñuy xam ne man mbay doon laa tudd. te it loolu jagle la. waaye it yemuma ci tur bi rek. dama dama boole di xeeñtu la sama turandoo doon def. ci tagg Seydina Muhammad. loolu moo ñu boole. ak kër Seydi Hadji Malick. ndax dañoo fekk sunuy maam yëpp jeex ci Maodo. ñu nit ñu ñëw rek. Hmm. jeex ci si daal di mais yow da nga da nga daan tëgg Seydina Mouhamed doonte da ngay faj nag. da def ci wàllu asalaar. da ngay faj ay feebar yu bare fii. Euh, ci loolu. waaye bara ñuy ak ci wàllu faj gi. ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan Europe ak. xam ni kii doonte dafay faj waaye dafay tagg Seydina Mouhamed ci ci sa turandoo boobu moom ngay moom moom ngay moom ngay moom ngay moom ngay roy euh, toppandoo kenn ku dul moom ñu bëggoon sax doonte ñaari bayit la wala ñett nga laalal ñu ko gaa yi xam ne kii ay tagg Seydina Muhammad ba mu ëllëgee ñu war laa mën a woo ci jotaay yu mel noonu incha allah imam alquds wal aramayni wa rusul rabbul alamina Mamadou Lamine sallallahu alayhi wa sallam njol makka yaa leen gën sallallahu alayhi wa sallam hawa kulla majdin lil wara wa jalalatin هوى كل مجد للورى وجلالته وجاء بآيات ما كل خالة فمن سك فيه فهو هلف دلالة أفي الحق سكن بعد ألف دلالة moom kay taxaddama sikru ma dëdër yuqro sama turandoo noonu la ko daan wéyee ah. nee ba yàgg nga dégg ma naan fa si fii ah. lay la tëllati mooy rañaan gëm doon wéy ci yonent bi oh. ñu ne ko Sidi Aji Malick lu ci wax mu ne xoolal akrim bi man hmm. jibrilu min xuddaami ah. mikaalu asrafil samson yami ñu ne Sidi El Hadji Malick hmm. mu ne akrim mooy wiiw ah. jibrilu xuddaami ah. nee na xoolal jibril moo doon journaliste ba hmm. ne rojo yàlla bi mooy subhaana la si asra bi abdi laylan min al masjidil harami ila masjidil aqsa ñu ne rojo yàlla fan la déparé mm. mu ne mu nga déparé mm. minal masjidil xaraami mm. ila masjidil axsa ñi ne rojo yàlla fan lañ ko jëkka mu ne ëllë si naa xawloo ñi ne yàlla loo ko doon doyee mu ne li nuriyoo min naa yàlla nee na dama ko doon wanne yëg naa coono gi mu sonn ma di ko bégal ne ko ñëwal nuyu si ma tabaarakallaahu ñaa ngi waaye kontaan bu baax a baax a baax a baax di am mbégte di ànd ak xaaj mbay doon ndaw di turandoo Papa Mbaye Donde waaye di soppe Serigne Babacar si di wax naa ko léegi ba ñu tàmbalee. ñu ne dafay tagg Seydina Mouhamed wane ne day tagg Rasulullah rek moo tax sax ñu wayloo ko bayit bi pour yéen ñi nga xam ne fa tabarakallahu yéen a ngi ci réseaux sociaux bi ku ci am rek ci jotaay yu mel noonu nga nga boo ko ci woowee xam naa ne jot bi sax du ko may waaye boo ko ci woowee loolu tarbiyam la waaye may ñu jékki-jékki saa di si la léegi du question da nga bàyyi milieu tagg Seydina Mouhamed sax mais ñu mel ni ci xaw a arrière ak tuuti lu waral arrière boobu. waaw euh, du arrière sax ndax dafa am loo xam ne. du arrière dafa am loo xam ne euh, boo ci yàggee di nga gis bunt yoo xam ne di nga xam di nga di nga gën a mën a organiser fooy mën a teg sa tànk mm-hmm. ndax àddina dafa dafa doon loo xam ne mm-hmm. lépp looy dugg rek dañ cee war a xoolaat fekkee yaa ngi ci woon daaw bu dewee déwénee nga xool ban façon la ciy duggaatee hmm. nekkul arrière waaye comme tag yonent bi ñi ci nekk dañoo bari hmm. te bugguñ sax ñu bokk ci wuy jogandoo yi hmm. nga xam ne am na ñuy tagg yonent bi te xamuñ xàq Seydina Muhammad dëgg dëgg la te jànguñ riirandoo bi bëri moo tax ñu xaw a beesandi xaw a dal tuuti ndax ñun duñu génn lu dul ci ndigalu kilifa. Hmm. du ñu génn lu dul fu ñu wooyee. Hmm. du dem ci tànt lu dul dañu faa soxla. Hmm. moo tax it suñu tànk xaw a gàtt. waaye nekkul dañ cee arrière. ndax am na ñoo xam ne fu ñu dégg tànt dañuy dem. bu ma gisatul fu bari nag. day fekk woowuñ ma fa man ma woowul du ma fa dem. ndax tagg yonent bi sëñ Cheikh nee boo koy tagg. lu ci tiitoo dee ko taggee xaal waaw dee ko taggee sa xaal mm. kon yonent yi boo ko taggee sa xaal rek mm. duur fi nekk ngay dem mm. am na foo xam ne boo ko duggee doo fa taggee yonent bi xaal nan nga fay taggee yonent bi instant nga fay taggee yonent bi waaw kon bay dégg na la ci loolu mm-hmm. waaye nañu dugg nag ci li nga xamante bi nag wax naa ko léegi-léegi ba ñu tàmbale boo fooxo kulu zi ilmin alim lépp loo xam ne am na ko la a xam la ko la ko ëpp am fa xam fa ngay yem da lay zone ci milieu tànk Seydina te ba léegi yaa ngi ci. waaye yàlla dogal tamit yàlla yokkalaat la yeneen grade ñu jig saa dégg ñu ne mbay léegi léegi médecin traditionnel la. macha allah fay dafay fay. moom moo jiitu sax tag ah moo jiitu mais tag yent bi kon moo ko dafa gënoon a fees. waaw mais ñu ñu jékki-jékki saa ñu ne mbay léegi médecin na nit nag kenn doon nettali sa gént di di nettali sa gént moroom. mbay mi ngi ni toog docteur la. moom moo ñu gën a xam si yooyu bokk la docteur yi ne ci. Euh, hôpital yeeg euh, dispensaire yi mais ci këram lay toog ay nit di am feebar di sonn di jaaxle mu ñëw mu leen di dimbali te yàlla rek a tax waaw léegi nag ñu bëggoon xam léegi faj boobu nan la la dikkee leen bay li nga jàngi la wala li nga donn la wala ñaara am li nga jàng wala li nga donn ñaara am mooy li ma la wax rek ci commencement xam nga loo doon ak loo jàng day dëgër hmm. man dama judd hmm. fekk samay kilifa ñu leen di naan uh-huh. euh, ma judd fekk ñoom it ñu doon xam-xam ci seeni maam waaye nag dañ ko gëstu jàngi hmm. man sama maam bi jur sama waajur bu jigéen bi mu jàngi jee ba ñëw ñu ne dañ koy takkal soxna dafa laxasaat daw jàngi wala laxasaar dem jàngi sama maam boobu di demee bay génn àddina li wax ni ay njabootam mun nañ ko seetaan après. dañ jël kayfiyaat li mu amoon yëpp def ko ci valise photo teg ci valise jël caabi ji xool ki mu gën a mu jox ne ko su mbay doon de jógee ca daara ja nga joxoon na ko caabi. daf may fàttali ndénkaane bi moom Cheikh Omar ma jógee daara ji ñëw mu loolu jox ma dama sa maam moo la ko jox kon donn naa. Mhm. waaye nag iftifta ba ba mu ciy am. Mhm. fatxu ba mu ciy am. Mhm. foog nga toog ak nitu yàlla mu ubbi la ci. mu ngi mel ni ñu teg fii magasin xaalis. Mm. tëj ko jox la caabi. Mm. nga ñëw nga ubbi ko buñ la waxul nooy liggéeyee ci xaalis bi rek mun ngaa tibb di maye chaque jour. Mm. waaw te doo xam noo koy utiliser. ubbeeku boobu nag. nit yàlla yi fi des ku mel ni maam El Hadj Taïl ak Mamadou Bassirou Sall ak euh, Mamadou Lamine Ndaw ñi ma la wax ñëpp. ay doomu wàlliñ leen mm-hmm. na ci ubbi moo tax am fitu toog di liggéey nasaraan mm-hmm. di ci ñaanalaate du ma faj de mm-hmm. yàlla mooy faj waaye dañuy ñaan yàlla yàlla dégg suñu ñaan ci barke man ñu baax na nangul ñu ñu mbay bëgg xam ne yow ci wàllu zulmaan da ngay liggéey ci zulmaan yow wala te yow nuuraane rek ngay liggéey non man zulmaan sax mu ci dox Mm. parce que sulmaane amul mujj mm. man li may liggéey lu ne mm. ci nuuraane ndax sulmaane boo ko dee liggéey di nga dem ba àddina jay la parce que yaa ko wax bu fekkee sulmaane ñuy seetaan xamul li muy firi mooy lëndëm yaakaar naa ku nekk bëggoo lu lëndëm caméra bi sax boo ko tegee ngay bëgg lu leer kon sulmaane képp koy liggéey di am àddina. waaye doo am mais nuuraani ànd hmm. ànd naa jinne. Hmm. ndax jàng ko ci alxuraan. Hmm. qul huwa indi annahu stamaa nafarun min al jinni. fa qaalu inna samina qur'aanan ajaban yahdi ila rusdi fa amanna bihi bihi. Ah. wala nusrik bi rabbina ahadan kon jinne yooyu. gëm nañ. te ci nuuraani la ñuy dox. turu yàlla nag. Mm. dafa am xuddaam. Mm. am rawxaan. Mm. xuddaam bi mooy dox service. rawxaan bi mooy nangu. bu nangoo mooy diggal xuddaam yi. xuddaam yi dem dox service. defal la li nga bëgg. koo ciy liggéeyal turu yàlla. tey ci misaal. tey secret bii. na de. waaw tey secret bii. waaw ah. bii ngay gis. Ah. bind la xam nga. Ah. gis nga mbir mi. waaye képp koo koy jox mu koy utiliser. Hmm. da am turam. Hmm. ak turu yaayam. Hmm. nga déchiffrer ko. boo ko déchiffrer. lam lay jox. ci ngay rëdd xaatim. xaatim boobu ngay rëdd. am ngay def fii ci ginnaaw. kii ubbeeku ci lay dox. Mm. xaatim waaw xaatim boobu ngay rëdd. Mm. moom ngay rëdd fii ci ginnaaw. Mm. am na turu xuddaam. boo xam ne da koy liggéeyal. boo ko liggéeyale ci ndoxu sam-sam nga koy def. ëf moom bu koy utiliser. buy sang sangat bi. day naan ci ndoxu sam-sam. si bu samee ndoxu sam-sam waaw ah. maanaam boo ko liggéeyalee xaatim bi ci lii boo jëlee turu yaayam ak turu papaam te mm-hmm. siifure ko mm-hmm. liggéey bi am na turu xuddaam booy wërale xaatim bi mm-hmm. turu xuddaam boobu dafa am lim boo ci liggéey ut ndoxu sam-sam def ko ci ndoxu sam boobu bu xëyee moom da ciy naan bu fekkee dafa nekk ci weeru koor comme ni bu ndogee da ciy naan buy xëdd mu naan ci mu sangoo sangat bi kii ku ko am ci àddina. Mm-hmm. doo tëj. waaw. gars parce que yaakaar naa li may wax toujours. Mm-hmm. ndaw day bëgg ubbeeku. Mm-hmm. ak mujj. gis bii. beneen bii. dañ ko liggéey. ci yaasin. yaasin wala ko àll ak kii bi. waaw. waaye mooy gis si inna allah des naa maa la min nafaat. waaw ci li ah. ci li mu yaasin lañ ko liggéey. 83 hmm. aaya la yaasin. Hmm. Hmm. yaa ngi dégg. bii dañ ko boole. isa waaqeati. ak inna la risque naa maa la min yaa ngi dégg inna la risque naa maa la min dañ ko ciy liggéey 83. dafa am juróom-ñaari ndox yu muy àndal. am juróom-ñaari sunguf yi muy ànd ak mhm. di dina ànd ak mhm. quatre-vingt-trois pousa ak quatre-vingt-trois dég mhm. sunguf yooyu muy àndal ak ndox yi muy àndal ak benn parfon boo xam ne parfum boobu buñ la waxoon li muy jar rek boobatul da nga ne sëriñ bi daf maa bëgg a nax parfum boobu rek la kay fii bi mën a àndal. lu muy jar parfum bi. parfum bi day jar quatre vingt cinq mille. quatre vingt cinq mille. quatre vingt cinq mille la parfum bi jar. boo ko jëndee mooy ànd ak sangat bi. Hmm. moo tax ñaari moo tax mu jël moom sangat bi moom nit pour mu jël ko moom ñaar lay joxe. waaw sangat bi moom. waaw ah. mu su fekkee dama la koy may rek. 600000 ah. laa la koy joxe. waaw ah, mais xanaa kii sama saari ko du ci am. 600000 laa la koy joxe. 600000. 600000. parce que. waaw dafa sax sama waati waaw six cent mille boobu day day néew ci juróom benn fan yi yàlla bind àddina hmm. boo koy sangoo juróom benn fan nga koy sangoo waxoon naa ko sànq bi ñuy a tàmbalee benn fan ko dinaa ko waxaat allah borom bi xam-xam la hmm. te fu ne lañ koy woowee fu ne la fi ni di di jóge du ñëw mu leer ñu nag suñu bët ñu teg suñu bët waxuñu ko ngir lu ko neex waxuñu tamit ngir wutal ko client mais am na ko ba pare wala soo ñu sàkku émission bi ak moom mu mel ni kon mbay dégg na nga wax ci wàllu rawxaan wax ci wàllu xuddaam génne ngeen ko sa sakay fi sa sa sakay fi muy sa muy ibbeeku lii laa mën a wane waaw ñaari yi nga fi mën a wane waaye mën a nga nag ak ñeneen ñi ñu ñu mën ci seetaan mu mel dama ci biir wax ji nga waxu sunguf kon ne da ngay da liggéey sunguf ak ren waaw xam nga sunguf alxuraan euh, dafa am loo koy liggéeyee boole ko sunguf mu dox hmm. sunguf kese waxuma ne du dox waaye du am doon mais gars yi ne sunguf moo gën a gaaw alxuraan de. waaw ñoom mun naa àtte foofu benn àtte bu ndaw. Ah. ci sunguf hmm. jëlal sa mboob mboob nga teg ko jël sa matt teg nga taal ban mooy jëkk a tàkk. mboob bi. mooy tàkk. Ah. mboob bi bu tàkkee. Ah. nga taal matt bi. balaa matt bi di tàkk mboob bi muy def. day jeex tàkk. day jeex. loolu sunguf nag. ah sunguf. bés boo ñu la ko joxee nga utiliser ko tey dugg tànn ñu ne eh, Oustaz Diarra mm. e eh, Diarra ñëw na génne xaalis jox la bu subaa boo demaatee kenn du tudd moo tax dootoo dégg ñenn ñi waaw ñu gis ñu siiw ñëpp ñu leen di tudd ba yàgg ñu ne kamaj sunguf la ñu waaye baatin ci alxuraan boo ko liggéeyee ñu jox la ko nga utiliser ko na nga ko war a utiliser sa tur dootu fay ba ilaa yawmi diin te di am mucc di nga am kaaraange di nga raw. da ngay dugg da ngay dugg da ngay da ngay liggéey dem sunguf nag moom weddiwuma na de. yow lii day ànd ak sunguf. lii day ànd ak sunguf. Ah. sunguf kese ku bëgg ñu jox la waaye it dëgërul. Hmm. du ma waxi ñi koy jox li ñuy joxe baaxul. Hmm. baax na de waaye alxuraan ëpp tey boo jëlee sunguf ci misaal nga jël mboq teg ko ci matt bi taal matt bi day gaaw a booy mu ngi mel ni nga jël pétrole rek sotti ko ci ñax boo taalee day tàkk pétrole baa ko dimbale waaye nag la tax mu sax fa ah matt maa tax hmm. waaw kon ñoo ko dégguloo bu wàllu bu dee wàllu reen reen it dañ ci yëngatu reen léegi su ma yeboo reen yëpp dañ koo def sunguf parce que tey bu dee damay yëngatu ci wàllu hémorroïde macha allah Sira ma ci waaw parce que fekkoon tey dafa am témoin te Sénégal neexut a waxee témoignage dañu yaakaar da fay nit ki mu ñëw waxal la lu baax. Mhm. man yàlla rek moo may témoin. Mhm. ndax utuma kiliyaan yoo xam ne damay fay nit ñu dem ne leen dem leen ci sëñ Mbaye déedéet defuma loolu. te témoin bi gën a wóor nga faj nit mu gis keneen kooku loolu la ko dal dal ko indi la client indi hmm. dàq moo dàq te wàllu hémorroïde moom yàlla suturaal nañu ci bërki dem rek laa benn soxna mu ne ma sëñ Mbaye hémorroïde yi ngay joxe de am na ku ma la war a indil ma ne ko ku la ko wax mu ne ma xam nga waxoo ma ko damaa toog ci jataay mu ne sëñ Mbaye de bay doon de hémorroïde yi muy joxe ku ko naan wér. waaw hémorroïde lu moo ko joxe mbay. hémorroïde eh, feebar la dafa am externe ak interne hémorroïde dafa am ñoo xam ne seen yos dafa soxal am na ñoo xam ne ballonnement la lay ñëwee am na ñoo xam ne eh, booy dem toilette doo mun rek ngay génn na ñoo xam nga dem waaye day nàcc boobu nag moo ci gën a garaaw. bi nga xam ne dafa dem ba am picc di naaj boobu moom baaxul moom moo gën a métti ci émeri te ñu te ñu ci ëpp boobu da leen di dal bu ñu ñëwee dama leen di jox sunguf bii dañ koy segg un litre d'eau ci naan gas gasete ndékki añ reer bu fekkee weeru koor la boo xëddee ak boo ndogoo bu ñu paree foofu ma jox leen boo xam ne bu ñu lekkee ba suur dañ koy somb di ko di ko matt boobu moom it du def dara parce que damay dégg ñu bëri ñu ne nañ bàyyi di lekk sunguf wala di naan ay reen wala ay sunguf déedéet dafa am sunguf yoo xam ne kenn du ko lekk am na sunguf dañ koy lekk xam nga jinjeer boo ko walee sunguf yi mm-hmm. lu tax nga koy lekk parce que baax na jinjeer la baax na mm-hmm. am na nag sunguf yu mel noonu yoo xam ne boo ko lekkee day res mm-hmm. waaw man nag hémorroïde bi may joxe dafa am sunguf bu ñuy nekk ak sunguf boo xam ne kenn du ko lekk danga koy segg ngay tàngal ndox natt kudd sotti ci segg ko comme ni ngay seggee café di ci naan kaas asati ndékki añ reer man hémorroïde boobu lay joxe bu fekkee wàllu ndoxu cité lay noonu lay demee macha allah waaw man bëgg naa xam ñaata façon cité moo am waaw xam nga siti moom hmm. am na ñu koy wax korobët. Mm. am na ñu koy wax jàng euh, kii kii ndoxum siti. Mm. am na ñu koy wax kuli. Mm. yooyu yëpp benn tur la. maanaam fi ngay waxee ne lu baax. lu bon it day bëri tur. waaw wax nga dëgg du ma ne lu bon dama yàlla jéggal. ndax feebar nit ya kii jaamu yàlla la. jaam la boo xam ne yàllaa koy roof ci moroomu jaamam. léegi nag la xool ba xam yow. nooy def. ndax yàlla bu la roofee feebar dafa am lu bëgg ci yow. dafa am lu muy xool ci yow. waaw mm. xool muñ geeg. Mm. tawxiid gi. nga mm. xam yow gëm nga ne li yàllaa la ko teg wala tegu la ko. yàlla dafa dogal. ñii di ko wax kuli. am na ñoo. day nekk seen loxo yi. di dagg. am na ñoo seen loxo yi day fett bu buñ la nuyoo. day ko nga yaakaar lañ seet lañu yor. gis naa loxo loolu si siti da koy def. gis naa jigéen ñoo xam ne bu mu ñëwee damay bëgg dee. waaw siti da koy def. am na ñoo xam ne du génn seen yaram waaye bu ñu amee soxna walla bu ñu amee borom kër bu ñu àndeek moom mm. ndox bi mm. day oyof du mun a former pour nekk man yi bu far pour ba tey loolu bokkul ak loolu bokkul ak faiblesse déedéet bokkul de ah déedéet ñaareel bu génnee mm. day nekk ndox bu oyof ndox bu ndeseer mm. boo xam ne du mun a former mm. loolu siti da koy def mm. am na ñoo xam ne sax mooy tax du mën a am doom waaw am na ñoo xam ne bu génnee day tàng jir ba day tuuruwaat yaa ngi dégg day mel ni bittax boo xam ne safara nga ko tiimale muy toq muy toq di tuuru waaw muy tuuru loolu siti da koy def comprendre mm-hmm. am na ñoo xam ne mm-hmm. day nekk ci seen mm-hmm. kanam bu ñu sawee buñ tuuree ndox ndox bi day tàng nga xam ne kii cité léegi nag bu fekkee góor nga ngay tuur ndox muy tàng day dem ba téye sa ngóor comprendre day dem ba téye sa ngóor yóbbu ci faible sexuel waaw nga dem ba faible nga xam ne yow dootoo am doole pour ànd ak sa soxna waaw bu dee jigéen bu ko jàppee bu àndeek borom këram ndox bi day sotteeku waat. day dellu si waat waaw ndox bi day seey. Mm. mun a formé wu ci biir. Mm. waaw moo tax cité moom. Mm. macha allah kon daal cité moom mën na dem ba yóbbu la ci faiblesse sexuelle. waaw mën na dem wala ba yóbbu la ci ñàkk am doom. ñaar yooyu yëpp dana ciy yóbbu. te ñaar yàlla dimbali na la. waaw may doon na yow yaa ngi faj. ñaar yooyu yëpp. yàlla mu ngi ciy dimbale. yàlla mooy faj. yàlla mu ngi ciy dimbale. ah ñu ciy def lu ñu mun. ci barke mag yi. Euh, yaa ngi ci am résultat. maa ngi ci am résiltant baax. Mm. Mm. wallaay déggoo lu ma la wax. Mm. bu fekkoon du dañuy jël nit mu ñëw seede. rek konoon su ma indee ñuy seede. ba am na koo xam ne. toog na six ans. amul doom. bi mu ñëwee ma dimbale ko ci li ma yàlla may. bi mu utiliser samay garab. deux mois. daf ma woone ma. kontaan naa. Mm. su ma wannee lor. Mm. yow yaa tax. ginnaaw yàlla yaa tax ma ne ko déedéet mm. lépp yàlla la. dafa am loo xam ne. daf la doon yàqal. xamoo waaw te xamoo ko ñu dimbale la ci. yàlla indi kàttanam. ak man-manam. waaye ñun ñii di wax ak yow sax mënuñoo assuré ne. dañuy am doom. kon tabaarakallahu yéen a ko déggandoo noonu yéen fii seen émission jotaay mag ak xaaj Mbaye doole ndaw. yéen ko ko déggloo yéen ñi nga xam yéen a ngi seetaan euh, ku ci am du mel noonu wala nga gis ko ku ci am rek nga indi ko fii ci xaaj may doon daw fii ci tëlim mag nekk ci koñu saf bi xanaa li ñuy cërli woon ci waxtu bi xaaj may mat na ñu bàyyi la nga joxe sa numéro téléphone euh, ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm ànd ak jàmm alaxira ci weeru tedd bi nekk di weeru koor gi ñaan yàlla lépp lu ci jàmm yéen yàlla nangul ñu waaye da nga jox seen numéro ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan boo fu ñu gisee koo xam ni loolu dal na leen ñu mën a woote mën laa jot mën a la nga dimbali leen ci li la yàlla jox dëgg waaw loolu lu ma ci hmm. maa ngi lay gërëm bu baax hmm. ah, xam nga li ñuy liggéey yëpp kenn mënu ko wax da hmm. ci wàllu concours wàllu ku bëgg këyit nekk bitim réew bëgg kayit wala ngay def concours yooyu yëpp yàlla daf ñu ciy dimbale ñu ciy jaar ak ay nit ba yàlla may ñu ci ndam waaye nag yow it. émission émission dañ koy defaat. xam nga bi moo moom waaye dañuy ñëwaat fii pour defaat beneen ñu ngi lay gërëm bu baax dugg ci yooyu yëpp incha allah lay gërëm bu baax di gërëm technicien bi. di gërëm ñëpp képp koo xam ne yaa ngi koy seetaan. Hmm. incha bu ko defee rek. Hmm. comme ni ñu ko waxee ñun ab taalibe la. Hmm. taalibe buy jàng te mokkalagul. waaw am ay kilifa nag. bu ko defee képp koo xam ne bëgg nga ñoo jot. ci numéro yii 78.

mën nga ñëwoon ci numéro boobu. bi daawaana ah. alhamdulilahi rabbil alamin. xam naa numéro bi sax daañu ko ci suuf. incha allah rabbi. yéen ñu koy seetaan xam ne ko gis. wax na ko waaye dañ ko bindaat ngeen gis ku ko ci a jot rek nga jot ko xaaj may doon ndaw mu Serigne Babacar Sy di ko ñaanal yàlla yàlla gën a guddal fanam li ñu cee lu woon ci waxtu bi moom mag waaye li ne ci moom li ci dëndam daanaka xaaj ba xaaj ba xaajaat bi sax génnaatul kon faaw ñu amaat ak moom fii fas yéene koo jotal képp koo xam ne yaa ngi ànd ak ci réseaux sociaux yi ànd ak ñun Salam Vision waaye du ñu daal di mukk nuyu wu ñu DG Serigne Sam Seck di ko ñaanal yàlla yàlla gën a guddal fanam di nuyu fa tabarakallah ki réalisé bi di Ousmane hmm. di xale bu baax xale bu yar di ko ñaanal tamit yàlla yàlla taxawu ko moom maag moom ñooy ànd hmm. fu may dem rek moom lay àndal daanaka jotaay mag yi léegi daanaka léegi moom alalam hmm. moom moo ko ci loxoom di ko ñaanal yàlla yàlla taxawu ko di nuyu fa tabarakallah ñëpp bàyyuma kenn bàyyuma kenn nuyu sama yaay samay jigéen samay rakk samay xarit samay am di jàmm waaye di beral mention spéciale bu ma xëy di soxna Mbaye Daan ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla dëgëral ko. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa